di féliciter ministre de l'eau et de l'assainissement ak ministre bi nga xam ni moom la ñu toftal ci moom muy toppatoo wàllu inondation di nuyu ministre yi fi teew yëpp di félici di nuyu aussi gouverneurs yi euh, bu Ndakaaru bu Diourbel ak euh, bu Ndar parce que ak bu Fatick yéen aussi da ngeen nekk ci région yoo xam ni inondation mën na leen a sonal ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax li ñuy tàmbale mooy félicité ministère bi ak cadre yi fi nekk yëpp ci liggéey bi rafet bi nga xam ne def ngeen ko fii ak ni ñu waxtaanee ni ñu waxtaanee nag aussi mën naa wax ni santaane président ndax conseil interministériel dañ koy faral di defee. dañuy def communication wax na ñëpp génn ñu waxtaan suñu biir woowaat leen mais lii dafa doon loo xam ne dafa jëm ci askan bi te ñu bëgg ci ànd ak yéen ngeen jàppale ñu ci ci en matière de communication ndax président yéene bi mu ci am mooy lépp loo xam ne dina wàññi coono askan bi dafa ne ci gouvernement bi taxaw kon bu ci gouvernement bi di liggéey li gën mooy li ñuy def ñu waxtaan ko ak yéen bañ koy waxtaan yéen ngeen fekkee ko xam lan la ñuy def ci lu baax ak lan moo xam ni xëy na nañ ko defee am na lu ci matadi ndax nit moom day jëf rek li am solo mooy na am yéene def nu mu gën a baaxee ak nu mu gën a rafetee mën na nag am boo koy exécuté ci doxalin bi mu am xëy na lu ci mànke kooku nit la ñu moom la yàlla sàkke noonu ma leen di sant bu baaxit ci ndax yàgg nañu fi di masawu journaliste yi ndax ñun dañoo toog yéen boobu ba tey yéen a ngi taxaw nekk ak ñun ñu ngi leen di masawu xëy na benn ñoom dinañ fexe ba defee foo xam ni xëy na bu ñu mënee toog yéen it ngeen mën a toog wala ku bëgg a taxaw it day fekk taxaw bi ci sababam la waaye fekk na ñu jox ko foo xam ni dana mën a toog li ñu fi waxtaanee nag mooy li jëm ci mbënd mi ren jii nag ñuy séentu nawet bu baax maanaam ndox mu bari kooku borom xam yee ko wax ñu ñaan yàlla mu mottali ko ci jàmm ak salaam nawet boo xam ni dina barkeel nawet boo xam ni dina jariñ askan wi yëpp ndax lii ndox di yàq xëy na mën naa bari waaye la muy defar ëpp fuuf kooku ndox la ñu gën a soxla am ndox comme sa nit ñi ci seen bopp parce que nit a soxla ndox pour ñu mën a am ndox boo xam ni mbay mi lañuy naan ak la ñuy jëfandikoo dina am ci réew mi loolu soxla nañ ko lool. ren nag ne jàpp nañ ni ndox mi mën naa mën naa bari am na nag liggéey yu bari yu ñu fi tàmbali yoo xam ni fukki at yi wees yëpp euh, président amoon na ci programme am na lu bare bare lu ñu ci def bu gën xoolee depuis mille 2011 ak léegi xëy na ndox mi gën naa bari waaye ni ñuy yëgee inondation bi xëy na am na ci boor yoo xam ni wàññeeku na bu baax a baax gisee nañ nag ay boor ay côté aussi yu bees yoo xam ne aussi. ndox mi dem na fa loolu yëpp dafa laaj taxawaay ak liggéey boo xam ni incha allah dinañ ci dinañ dinañ ci taxaw li njëkk def ñu ciy félicité ministre mooy fi mu nekk ni service yëpp xam nañu fan la ñu yaakaar ni bu fa ndox amee mën naa jublu yàq kooku defee naa ni am nañu ay cartographie am nañu ay xam-xam yoo xamante ni wane na ko may rafetlu lool li gouverneur yi def parce que gouverneur yi ku ci nekk ci sa biir région wane nga exactement fan nga jàpp ni mën na am problème kooku lu am solo la ndax information boobu bu ko gouvernement bi amee dina tax ñu gën a mën a organiser liggéey bi gën ko mën a li tubaab yi di wax planifier ko mooy xool nañ koy defee ba jafe-jafe yi bu mënul ñàkkit mu doon jafe-jafe yoo xam ne dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax fii ci biir Ndakaaru ak ci yenn région yi moo xam Fatick la moo xam Diourbel la surtout ci Touba moo xam euh, Saint-Louis fi ñu demoon fan yi passé muy Pikine gis nañu am na ay liggéey yu ñu fa tàmbali liggéey yi am na ci yoo xam ni jeex na sotti na ñu ngi ci bég bu baax a baax di félicité ñu ko def ñëpp am na it liggéey yoo xam ni des na euh, incha allah bëgg nañu ci fan yu néew moo tax ma wax léegi ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu inondation niñ ko defee nii bu ñu fi jógee na woo entreprise yi woo leen ñoo ak service su ministère de de de de bi toppatoo wàllu assainissement ñu boole ci nag ministère des finance ndax ñoom ñoo yor code ñoo yor direction centrale des marché bu nekkee am na ay fay yu war a fay ñoom ñoo ko fay comme sax ñoom ñu dajee ci benn euh, benn réunion waxtaane kaay yëpp bu leen fàtte kenn ñu fexe ba nga xam ne niñ fi toogee tey ak li nga xam ne yëkkati dañ ko comme préoccupation bu ñu toogaatee bu ci nekk ñu jëm ko saafara ñi nga xam ne jubóo nañu ak ñoom euh, techniquement liggéey bi mën naa continuer amul benn problème bu boobaa ngeen def ko ñu fexe ba këy di ci war ki ñi ko war a ñu signé ko pour que entreprise yi mën a liggéey ci xel mu dal ñu fay leen. secteur yi nga xam ne am na ay jafe xam nañ ne entreprise bi mënatu ko wala boog lañ ko santoon ak lam fa fekk wute na loolu yëpp mën naa nekk lu ci mënti nekk ngeen leeral ko gouvernement bi. pour que matuwaay yi nga xam ne war nañ ko cee def ñu ñu ñu ñu jël ko sant nañu aussi gouverneur dakaar ndax li ngeen fi wax mooy jàpp nañ ni ci saw sawu jant la fii ci ndakaaru ak li topp géej gi xëy na ci la li ñu yaakaar ne ndox mi gën naa bari mais ndakaar ndakaaru aussi dafa am particularité ndax dafa bari ay infrastructure dafa bari yu ñu fiy liggéey service yëpp bu ci nekk nag ku ci nekk am nga programme boo xam ne dina am lu muy saafara ci wàllu assainissement gis nañ ko fi léegi APEX li muy def AGEROUTE euh, ci li mu def ci autoroute yi ak pont yi ak ci wàllu BRT li fi ONAS di def li fi Promoville di di def brigade sapeur pompier li ñuy liggéey ci biir ak ANAT loolu dafay laaj fii ak fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan gouverneur u Dakar woowaat leen muy loo xam ne du ñu xaar ba ndox mi ñëw mu am inondation ñuy ñuy ñuy ñuy xool lu ñuy def bu ngeen toogaatee fii ak ñaar fukki fan li ñu fi wax tey yëpp ñu xool ndax liñ fi santaane def nañ ko lañ ci deful it ñu xool lan moo tax mënuñu koo def ak kat moo ko mënut a def bu boobaa dinañ ko mën a utal ay saafara ba nga xam ne bu ñu yeggee ci hivernage ba mu commencé taw bu boobaa ay la yéwén dinañu xam ne ku nekk la nga waroon def def nga ko ba mu mat sëkk la ciy des nañu bàyyi ko ci loxo yàlla ndax loolu mooy la nga xam ni en tout cas jàpp nañ ne gouverneur u Dakar war na ko def ci nu mu gën a gaawee fii ak ñaar fukki fan fekk ministre bi pare li muy liggéey ak entreprise yi mais ñu ngi ñaan aussi yeneen gouverneur yi ku ci nekk ci sa localité nga def ko parce que dégg nañu léegi gouverneur u Diourbel ak gouverneur u Fatick ak bu ci bu Ndar ku ci nekk am nga ay point critique yoo xamante ni jàpp nañ ni bu ngeen toogee waxtaan ak ñi ngeen war a waxtaanal yàlla mën na def ñu def ci sutura en tout cas jàppale ni gouvernement bi am na ñu détermination ci ndigalu président la république suivre ket ci loolu de manière opérationnelle et pratique fu mu laaj ñu ñëw taxaw pour fexe loolu saafaraw dinañ ci def lu ñu mën ndax loolu la ñu président sant et incha allah kooku duñ ci yox yoxi benn boor kon def leen li ngeen war a def li nga xam ni dootul seen cër ci gouvernement bi la bu ñu ko jottalee rek incha allah la ci war dinañ ci waxtaan nag ñi nga xam ni ñu eh, dinañ ñoom la ñu seqal liggéey may rafet rafetlu nag liggéey bi nga xam ne ONAS def na ko tàmbali na ko di ko ñaan aussi mu gën a baral liggéey bi ndax ñoom ñoo toll nag ci jafe-jafe ndax buñ ne taw a ngi bëgg a ñëw ONAS la ñëpp di xool ndax ñoom ñoo war a def curage bi yenn travaux yi ñoom ñoo koy def yenn marché yi ñoom ñoo ko war a signé may ñaan ministre bi mu jàppale ko ci liggéey boobu di ñaan aussi waa finance ñu bàyyi ko xel pour dimbali ko ci liggéey bi nga xam ni président sant nañ ko ndax mu bañ a sooxee fenn ndax la muy def it ñun ñëpp ñoo ko bokk kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen euh, gërëm incha allah liñ fi tënk yëpp bu ci yàlla àndee àllarba dinañ ko jébbal président de la république lu mu ci nangu nag muy doon loo xam ne dogal na boo xam ni gouvernement bi dootu ci amati beneen sañ-sañ lu dul def ko ba mu mot sëkk. incha xam naa ni aussi li ñu fi def yitteel na ko lool ndax moom ci boppam moo bëgg lépp loo xam ne dafa jëm ci askan bi. ñu topp ko xool ko saytu ko was ñu ci àq ba nga xam ni fa la ñu mën a yem li ci des ñu xam ni moom mbiru sunu boroom la ñu ñu ñu nangu ko di ñaan yàlla ñu dajawaat fi ci jàmm ak salaam ñaan yàlla mu may ñu nawetu jàmm may ñaan en tout cas responsable yi nga xam ni am na lu ñu leen sas ñu def ko ci délai bi ñu leen ko waxee ndax it ñu mën a am élément wu information yi nga xam ni sunu kilifa dinañ ko mën a informer ba nga xam ni dara duñu bett.